mbokk yaa xarit ñooy nuyu di leen jaajëfal euh, si teewlu bi seen euh, émission face to face dellu si ñi ngi am nag mbégte euh, ñëw fii nga xam ne mooy kër suñu invité léegi tax léegi tey mu tuddee ko analyste ci biir émission bi ndax bëgg naa rek à chaque fois bu réew mi amee fu mu toll. ñu woo ko moom euh, laaj ko xalaatam ndax daf koy joxe san euh, euh, par parlo wala boog daal ut faral fii wala faral fële kon ñu ngi fii ci Almadies suñu gan mooy le professeur Arona Coumba Ndoffène Diouf monsieur le ministre ñu nuyu. ñu ngi lay fay di lay jaajëfal si chaque fois bu ñu la soxlaa rek nga nangul ñu invitation bi. pour rek sénégalais yi gën a xam ni réew mi di doxee ak itamit ñu am si yow un xam tuuti lan mooy xew euh, palais ndax fa nga nekk. te euh, nangu ngaa wax ak sénégalais yi la fa xew. ñu lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf aywa <laughs> mën nañu toog. bisimilah voilà alors monsieur le ministre euh, ñu ñëw nag ci kon sa portrait sa portrait di wax rek ne. fii nga juddoo ci euh, Dakar euh, atum 1961 euh, sa profession professeur chercheur nga sa réussite bu gën a mag Yaya bëgg naa ngeen filmel ma ko mooy prix d'excellence leadership Euh, ci science euh, transatlantique smart euh, loolu yaa ngi ko jotee ma fàttali ne su ma juumalee en tout cas yaay premier sénégalais wala bokk bër bu yaay premier sénégalais africain n'est-ce pas donc ce qui encore plus significatif yaay premier africain boo xam ne jot nga ko donc ci Washington DC Euh, États-Unis nga ko jotee euh, ñu ñu bëgg tey ñu la ko jox nag di ay euh, ay ay homme de qualité ndax ay sénateur lañu ñu ñu bëgg rek ñu revenir ak sénégalais yi ci solo prix boobu. waaw xam nga dañu maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. di la sant yow. di sant tamit sa professionnalisme. di nuyu sa équipe bi nga ànd. Mhm. xam nga dañu nekkoon États-Unis jànge fa nag. Mhm. am fa double major master am fa double major ji ci science de la terre et de l'environnement ñu ngi jànge nag City University of New York mooy la l'université d'État de la ville de New York foofu la ñu jànge ba am fa doctorat d'État de la ville de New York léegi ñu nekk ci suñu recherche euh, biir États-Unis ak ci àdduna bi di jàngale di def ay recherche di dem tamit euh, di visiter université yu bëri am ci biir États-Unis ay université yoo xam ne tamit dama fa daan joxe ay cours wala ay conférence et cetera ba mujj gi euh, North Carolina ak New Jersey mooy état yi nga xam ne def naa fa ay recherche ba ay application recherche yooyu tey jii soo demee Chine nga dem Japon nga dem Inde ci sumay recherche dañ koy appliquer mm. léegi nag loolu la américain yi gëstu ci man ndax prix bi dafa am benn organisation bu tudd SMART boo xam ne congrès bi moo ko jël ak sénat bi. Mhm. ñu jox leen leen da ngeen ñuy seetal ki nga xam ne ci atub sàngam moo fa gënoon a xarañ ci mhm. wàllu nàngam. Mhm. ñu seet ko nag ñu doon ay 3000 concurrents yàlla def ci baaxam ak suñuy euh, liggéeyu waajur. ak suñuy ñaanu sëriñ ak ñaanu Sénégal yàlla def ñu seet ko distingué ma. jox ma ko ci Capitol Hall. Mhm. capital Hall mooy foofu la député américain yi nekk. Mhm. ay député ñoo ma ko joxoon. Mhm. ay sénateur tamit. te bañ ma ko joxewee dafa coïncider tamit ndeysaan euh, le président de la république nekk Washington. mu jaral leen ñu ànd ba hôtelu président. jox ko ci su suma kanam ci ci kanamam. Euh, prix boobu. waaw ah, na solo boobu daal mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla lu ma bégloo la. Mm-hmm. ma koy delloo nag njukkeel Sénégalais yëpp. Mm-hmm. di ko delloo tous les Sénégalais. lu ma am rek bokk naa ko ak ñoom. waaw ñu donc loolu tamit ñu ci félicité bu baax baax ndax euh, ndamal ndamal Sénégal la. Euh, ndamal la ah. teg nag ab koppar tamit. ah, ah, ah <laughs> <laughs> <laughs> am na solo ndax. dee euh, prix ba ànd ak wéccet moom euh, euh, jàmm ak salaam kese la xëy na loo tax sax yow offre yi prix ba tax ba amoo déception amoo regret waaw wax dëgg yàlla amoo benn yooyu amoo ñu ngi sant yàlla. waaw donc xam naa ne comme léegi nii wéccet yooyu gën nañoo bari comme maxalu Saloum euh, maxalu Baye Fall euh, mooy sa plat xam naa léegi ndawal gi dina gën a bari. macha allah <laughs> dina gën a tooy. <laughs> xasida xasida nag euh, moom ngay moom ngay bégloo saa soo saa soo wéete daal xasida ngay bégloo. waaw xam nga saa yu ma xëyee soo naa 33. 33 mm. xasida yoo xam ne. du ma génn ci kër gi. Mhm. gannaaw ba ma jàngee alxuraan ba pare. Mhm. tey jàng ma am na solo am na solo. te dama jaayante tamit. Mhm. ne lépp loo xam ne luy bégal suma nopp bi. yàlla na doon lu jëm ci yàlla. amiin amiin waaw loolu depuis maa ngi ko def depuis soixante dix huit. jusqu'à présent euh, li ñuy wax euh, euh, wattani bu majaali sa shaqaawa. wax dëgg yàlla yàlla dindi dimbali ma ci mhm. loolu. loolu am na solo tonton alors ñu jeexalee nag euh, première partie bi di euh, sa portrait euh, ci rek laaj bi jamono ji réew mi loolu la fi gën a énervé. waaw ah, li ma gën a énervé bokk na ci ñàkk yaradiku mhm. bi nga xam ne moom la ñuy gis ci fépp nag fànn bu nekk. Mhm. respect amatul ci diggante mag ak rak ci diggante nit ak ay waajuram. ci diggante nit ak ay ay ay ay dëkkandoom ñàkk respect boobu nag li ko waral yépp bokk na ci torox bi nga xam ne suñu éducation maanaam njàng bi mm-hmm. muy jàng daara di jàng ci école yi di jàng université euh, wax dëgg yàlla ni ñu ni ñu ni ñu toroxalee jàng boobu mm-hmm. xam naa moo yëbb ci comportement nit yi moo tax ñu am société bi nga xam ne valeur yi dootuñu ko gis au Sénégal. waaw loolu loolu yëpp nag euh, euh, ak yeneen bokk na ci li nga xam ne euh, ñu ngi ko nar a toj nag ci deuxième partie émission bi muy waxtaan bu gën a yaatu bi yaakaar naa ne booba bu boobaa dañuy changer de corps rek monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf le temps nag ñuy jekk jekkalaat tuuti ñu ndax dellu dellusiwaat ci bi plateau bi. monsieur le ministre euh, Arona Coumba Ndoffène Diouf euh, ñu door émission bi ak euh, li nga xam ne mooy plainte bu association bu tuddee seen bopp jeune marabout citoyen déposé CREI contre première dame Marième Faye mu nekk lu bees ci Sénégal noo ko jàngatee. waaw xam nga la première dame Marième Faye dafa ñëw. jëkkëram def benn rupture ci première dame. mooy c'est la première fois première dame au Sénégal amul cabinet euh, Senghor euh, jabaram dafa amoon cabinet. Mm-hmm. Abdou juuf jabaram am cabinet Abdoulaye Wade jabaram am cabinet lu président ñëw mais jabaram du am cabinet mm-hmm. loolu c'est une première rupture. Mm-hmm. jabaram xool ne mënul toog kër ga deful dara mu ne day jóg di dimbali. waa Sénégal. Mhm. ndax moom li muy def soxlawu ko. elle n'a pas besoin de ça. Mhm. donc dafa jóg pour dimbali waa Sénégal. ci jóg pour dimbali waa Sénégal boobu su si naree am ay coono ak ay wax mu bàyyi ko. Mhm. man de su ma ko gisoon naa ko ne bàyyil servir le Sénégal parce que soxla ko. pour mu bàyyi fondation bi. bàyyi lu mu koy jëriñ. Sénégal dafa am baaxu ku jóg di def lu baax kooku la ñuy gën a ŋaññi. moom la ñuy gën a euh, critiquer. Mm-hmm. lool lool lool naka la naka naka naka naka naka la ko nit mën a dëkkee. Mm-hmm. mais mais mais euh, euh, ministre bu fekkante ni da nga ko diggal mu bàyyi kon fondation bi est-ce que loolu du jox raison ñu jàpp ne fondation bi sax dafa am woon raison d'être am darul muy juddu bañ koy bañ koy faat. fondation bi amoon na raison d'être parce que xam nga chef d'état boo gis jabaram wax dëgg yàlla war na am noo xam ne moom lay duggee ci askan bi am loo xam ne wàllam na waaram la lu mu war a def ci askan bi mais Sénégal nu mu tëddee nii day wane ne képp koo xam ne jóg nga pour def lu baax su na dee critiquer mais nga génn ci maintenant mhm. euh, euh, euh, bëggoon naa xam trop ci sa xalaat yow mi nga xam ne yaa ngi leen di fréquenter lu tax première dame Marième Faye Sall ma koy nuyu au passage ndax sama mag ju baax la mu nekk première dame boo xam ne dafa ci Sénégal en tout cas ci li ma gisagum bëri na ay xeer yu muy jot lu ko waral. waaw mooy li ma la wax sànq rek. Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne. Euh, dañuy singali benn nit rek et je pense que bi le président Macky Sall jëlee pouvoir bi jusqu'à présent amul dara loo xam ne ci wàllu illégalité boo xam ne première dame def na ko ñun nag dañuy wax spéculer xam nga jiñ nañ ko fi façon jiñ bu nekk mais euh, mi ngi def li mu war a def mooy dimbali waa Sénégal. Mmh. alors ñu ñu ubbi beneen euh, chapitre ci ci sunu émission. Euh, euh, président Macky Sall euh, yëkkati na un million jébbal ko ña ko jàppale ci benn bokk yaakaar nekk ay parti politique parti bu ne mu yëkkati un million jox la ko bu ñu jàppee ne la nekk ci benn bokk yaakaar ëpp na wala boog toll na ci cent parti kon mu mel ne cent millions la sunu xaalis lañ jël jox ko ay ay ay parti yoo xam ne ci benn bokk yaakaar majeure parti bi ay parti xur dab lañu kon. Euh, est-ce que loolu dugg na ci gestion transparente wala boog vertueuse bi nga xam ne moom lañ doon xaar ñun euh, citoyens yi euh, ci président Macky Sall. waaw information boobu tamit maa ngi lay xamal ne amul. ci naka. le président Macky Sall joxewul benn parti un million par mois dadi. Hmm. tabaski bi xam nga bii mooy troisième tabaskeem. Hmm. tabaski bii la ne xaaral ma yëkkati loo xam ne dama koy dimbali leader de parti mu woo leader de parti tàmbali ko nag ci waa APR teg ci Macky 2012 teg ci waa benn Bokk Yaakaar leader bu nekk mu jox la un million pour ñu dem dimbali say militant loolu loolu mooy la l' information. kon uniquement euh, subvention ponctuelle la. ci tabaski kese. waaw mais mais mais pourquoi communiquer wu ci ba nit ñi xam ne euh, euh, nekku 100 millions yu yëkkati rek sànni ko nii ci ngelaw li. waaye surtout yow tamit kenn du def lu baax di di di ko di ko wax. waaw mais mais mais comme euh, li nga wax noonu d'accord naa ci waaye naka nga jàngatee ni information bi ñëwee ci ci ci ci presse bi te xëy na sax information boobu dina dina tas ay parti yu bari ndaxte xëy na du ñàkk ay ñoo xam ne xaalis un million ba ci seen poche lañ ko dugal. waaw mais loolu ça engage le leader. Mm-hmm. mais lu président moom li mu def def na ko léegi nag leader yi yaakaar wala yuy spéculer wala opposition bi yaakaar ne weer wu jot ñu ñu ñu ñu jot un million yooyu dañuy nax seen bopp ndimbalu tabaski la très simple ndimbalu tabaski bu président jox leader am yi am na ci droit jeex na d'accord xëy na beneen tabaski nañ ko ñaanal yàlla tamit mu def ko 2 millions wala 5 millions. waaw mu gën a bëri euh, nga ko léegi euh, loolu euh, ndimbal boobu bi ma troisième tabaski président Macky Sall c'est la première fois mu def ko ñu gis tamit ne fan yii yëpp moom président Macky Sall. Euh, dafa nekk euh, euh, daal ci pré campagne la ko mun waxee wala campagne déguisée ndaxte ña ma xulóoloon ñëpp mu leen war a jubóofu ñoom waa benn bokk bokk yaakaar woo na leen fii Macky 2012 également léegi ma ngay joxe ay bonbon ak yu mel noonu est-ce que teelul campagne 2017 bi ce que teelul. waaw xam nga soo ko tegee ci logique de campagne. mun nga mun nga ne am nga ci droit. mais moom ci nu mu ko gisee c'est des alliés. toog na deux ans et demi yoo xam ne mi ngi liggéey amul jotu kenn te wax dëgg yàlla loolu la waroon def ndax ay sénégalais ñoo ko élire c'est pas les leaders ñoo ko élire leaders yi xëy na ñoo dem xeex ñu élire ko mais c'est les sénégalais qui l'ont élu bon am na lu mu yore loon les treize millions de sénégalais ci ñooñu nag la njëkkee. Mm-hmm. léegi nag lay soog a am jot. pour dellu ci leader yi organiser waat Benno Bokk Yaakaar organiser waat APR organiser waat Macky 2012. Mhm. loolu tamit mun nga ko teg ci liggéey ci ci politiquement. Mhm. mu nga ne c'est la voie pour 2017. mais même si c'est la voie pour 2017 dafa joxe ay institutions yoo xam ne bu ñu rek topp politique bi bés bu nekk mu wax ko en conseil des ministres. Mhm. bés bu nekk tamit ci message am mu wax ko dañ ma élire. pour na defal Sénégal j'ai pris des engagement yoo xam ne d'ici 2017 war naa woon Sénégalais yi ne lii laa leen waxoon lii laa def. Mhm. donc je pense que surtout avec le PSE ñu ngi ci logique gu liggéey mais nekkul ci logique gu 2017. ah nekku ci logique gu 2017 euh, euh, waaye man bëggoon naa xam euh, lan la ñu war a xaar lan la moom président lan la war a xaar ci ñu mel ni benn bokk yaakaar ndaxte évidement mooy perspective 2017 bu ñu gisee ne parti bu mel ne parti socialist ñoom teel nañu leerlu ne dinañ am seen candidat te xalifa Sall am na ay ambition naka noonu tamit AFP bu Moustapha Niasse nga xam ne Moustapha Niasse Niass bien que wax na ne euh, euh, partem euh, en tout cas du ñu nekk candidat 2017 Malick Gakou aussi am na ay am ambition légitime kon naka ngeen def ak seen allié yooyu nga xam ne ñu ngi ci biir ngeen leen di engraissé te terewul nag ñoom it ñu ngi taxaw di di xool 2017. xam nga Aïssatou sénégalais dañoo baaxoo. ñu ànd ñu nekk ñu jéem leen tas. dinaa la wax tey jii ne le président Niass. ci logique wu ànd ak président Macky Sall la nekk. wax na ko jëf na ko. président Niass ku ko xam homme de parole la homme de principe la. du wax du dellu ginnaaw. am na nag xëy na peut-être ñoo xam ne ñu ngi nekk ci biir coalition am ñu ci àndul mais ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité. Mm-hmm. mais ñun logique wu président ñas lañuy ñuy waxee. li mu waxoon Macky Sall jusqu'à présent ne ko nañu gagner ensemble gérer ensemble mi ngi ci ma nga assemblée nationale. Mhm. assemblée nationale gisuloo fa benn coow. Mhm. deuxièmement euh, le ministre d'État Tanor. Mhm. aujourd'hui lépp lu mu waxante woon le président Macky Sall ngi koy def encore ñoo ñooñu ay homme principe lañu duñu ay duñu def politique politicienne lu ñu wax ñu ngi koy def léegi nekk ci seen biiru coalition yooyu képp koo xam ne jël nga ses responsabilités bañ a suivre la logique du parti ki est euh, ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar jàppale président Macky Sall ba 2017 aux horizons de 2017 xam nga keroog nga bi ñu man seetaan naa le président euh, Tanor. Mm. bi ñu ko laajee affaire 2017 mun a jotagul. te jii seen i ministre ñi ngi ci biir gouvernement bi te yaakaaruma seen ministre li ñuy defal le président Macky Sall ñoom si seen bopp suñ fa toogoon seen ministre yooyu dinañ def lu ëpp. donc voici des alliés yoo xam ne la ñu waxoon jusqu'à président ñu ngi koy def le président Macky Sall li mu waxoon te ñoom ñu ngi koy def donc pourquoi ne pas laisser. ñu àndandoo defar Sénégal parce que loolu moo leen yëkkati ñu ànd gérer Sénégal. monsieur le ministre euh, ma euh, euh, kenn mënul weddi entre APR ak parti socialiste am na ay jafe-jafe ndax yaa ngi gis xalifa Sall. Euh, euh, mi ngi mi ngi mi ngi ñaawlu lu bëri euh, li mu jàpp ne ay xokkatal la wala boog ay jafe-jafe yoo xamante ne ni président Macky Sall mi ngi koy def ci ni muy géré wee mairie dakaar kon est-ce que yooyu ànd PS ak APR ci bi benn bokk yaakaar est-ce que xawul dugal hypocrisie tuuti. xam nga dañu war a mbir yi. Mm-hmm. Khalifa Sall maire de Dakar. maire bu njëkk ba dafa amoon loo xam ne loolu la mënoon ci commune yëpp ndax moom moo doon jot xaalis bi moom moo doon séddale loolu acte trois bi daf ko dindi. Mm-hmm. donc moom la mu mënoon. mënatu mm-hmm. ko mais acte trois boobu ay député PS ñoo ko signé ak député APR ak député benn Bokk Yaakaar ñoo ko signé à l'Assemblée donc moom ànd na ci. parce que son parti moom moo signé acte trois boobu. donc il doit prendre ses responsabilités wax nit yi li nga xam ne moo mun a nekk mooy que la munoon mënatu ko. parce que moom mënatu ko. Mm-hmm. en de xaalis. président Macky Sall dafa ñëw def acte trois loolu mooy lan mooy maire yi ñu doon tuddee ay. Euh, naka la président de communauté rurale. Mm-hmm. dootuñu président de communauté rurale di xool seen bopp ñu suufee dañ leen yemaleeg meeru àdduna bi kii Sénégal yëpp. Mm-hmm. ñu jël xaalis bi tamit euh, répartir ko noonu léegi commune bi ci boppam day am alal joo xam ne dootul jaar ci maire de Dakar ci moom ci boppam lay ñëw directement mu def politique am. Mm-hmm. mais loolu waa PS ak waa APR ak ak ak ak ak euh, képp koo xam ne bokk nga ci Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko signé à l'Assemblée. Khalifa Sall donc mënul ñëw di wax ne le président Macky Sall daf ko contre daf ko bëgg a damm ay laafam et cetera na wax nit yi dëgg acte trois boo xam ne moom ci boppam parti ba mu bokk signé nañ ko def ñu ci benn opposition bon parti boobu lu ñu signé moom ci boppam bokk ci parti boobu daf ci war a ànd. Hmm. kon nañu arrêté nañu arrêté di wax nit yi ne président Macky Sall dafa ñëw pour damm ay laafam. président Macky Sall lu muy ragal ci Khalifa Sall koo xam ne tu as pris euh, tu as tu on a voté pour cent en 2012 Khalifa Sall au niveau de Dakar il est connu na dem def 4000 yi ba pare li président Macky Sall def soo ko dellu si mu mun a jàkkaarloog président Macky Sall en plus aussi dafa nekk ci parti boo xam ne seen logique mooy ànd ak le président Macky Euh, euh, le le le ministre d'État Tanor wax na ko nee na ñoom seen logique nekkaguñu ci xool 2017 seen logique mooy dañu bokk ci gouvernement bi et gère ensemble mooy naka la ñu mën a def ba le président Macky Sall réussir. 2017 mm-hmm. su jotee ku nekk xam naka ngay def parce que ci bilan 2017 boobu waa PS bokk nañ ci. Mm-hmm. léegi donc Khalifa Sall n'est pas un problème pour nous xalifa Sall n'est pas un problème pour le PS parce ñun. waxuñu ak xalifa Sall kilifaam le le euh, euh, général du PS mooy le ministre d'État Tanor Dieng moom moom la ñuy waxal. Mm-hmm. te moom ci logique mooy Benno Bokk Yaakaar lépp loo xam ne dina ko def ba dooleel leen ba ñu mën a réussir le programme du président Macky Sall dina ko def ñun loolu la ñuy déglu. Mhm. mais nag euh, euh, su ma déggee nga wax monsieur le ministre dafa mel ne da jàpp ne Khalifa Sall dafay victimiser wu xëy na pour sénégalais yërëm ko. mais yaa ko wax c' est exactement ça. ah bon mais ku jóg rek victime mais Sénégal xanaa xamoo Sénégal xamuñu kuy kuy kuy kuy kuy euh, kuy naka la ñuy wax kuy dóore kuy mhm. feyu la xam. Mhm. mais Khalifa Sall moo war a jël see responsabilité il faut qu'il arrête le président Macky Sall amul dara contre xalifa Sall c' est les l'acte 3 moo ko joxoon ay prérogatives yoo xam ne acte 3 boobu joxaatu ko ko lamu mënoon mënatu ko ku doon xaar Khalifa Sall di la xàllal ay yoon di la defal ay loolu mënatu ko mm-hmm. kan ko war a laaj mooy maire ba nga fal ci sa commune kooku la ñuy jox alal ji léegi kooku moo ko mun mais loolu moo gën ci Sénégal. mais tamit est-ce tamit aussi euh, euh, euh, gis leen ne Khalifa Sall xëy na la mu doon pavage yu tali mbedd yeeg yooyu lait à l'école beeg bagages yooyu muy muy yu baax yooyu mu indil Sénégalais yi en tout cas Dakar waay yi moo ko mayoon doole ba mu ba local yi ba mu defee taxaw listam boobu taxaw Dakar mu yóbbu leen ardo yi <laughs> coalition bokk yaakaar bu bu président xëy na loolu yéen si loolu ngeen sukkandiku ba acte trois bi ngeen rëdd ko ba nga xamante ni Khalifa Sall la ñu mënoon du ko mënati donc c'est c'est fait exprès en fait. xam nga su fekkoon acte trois lay faral Khalifa Sall du gagné n'est-ce mm. ah, su acte trois bi su fekkoon ñun lay faral mais Khalifa <laughs> Sall du gagné. mais fexe ngeen en tout cas. kenn na tablewul ne mm. kenn na tablewul ko loolu le président da koy féliciter. ay xarit lañu ñoom ñaar ay xarit lañu. Mm-hmm. le président da koy félicité mais bu ñu politiquee ay circonstances yoo xam ne dañu changé la mu mënoon mënatu ko ku doon xaar ci ay Khalifa Sall ay pavage demal ci sa maire ba nga fal ci sa sa sa commune. Mm-hmm. nga toog ak moom ne ko Khalifa Sall mënatu ko yoo lañ jox koppar gi defal ma ko loolu mooy acte trois bi. Mm-hmm. te loolu moo gën ci ñun nit yi dañu jël doole. dootuñu ko jox benn nit muy wër di set fii la war a def pavage fële warul def pavage et cetera maire bu ci nekk yow yaa yor sa développement. décider sa bopp ah. mais loolu moo gën ci Sénégal. maintenant euh, en 2017 euh, imagine ngeen scénario xalifa euh, Sall jàkkaarloo ak président Macky Sall. tout dépend de monsieur Khalifa Sall en tout cas ñun on un candidat mooy le président Macky Sall. Mm-hmm. ku mu mun a jàkkaarloo ñun on sera contre toi. dinañ dal sa kaw ndax je pense que on a un bilan à défendre imagine-toi le président Macky Sall bi muy jël nguur gi mi ngi fekk le budget de la présidence quatre-vingt-quinze milliards mu ne na ñu takk suñu biir ñun ñëpp ñu takk suñu biir mu yóbbu ko ba quarante-trois milliards quatre quinze milliards ba quarante-trois milliards une différence de quarante-sept milliards ñu jóge ci loolu le président Macky Sall ne téléphone yi yi nga xam ne ministre yi lañ ko daan jox ñiy jox ko seeni soxna ñiy jox ko seeni euh, ku kenn xamul ñuy woote fu leen neex woote muy vingt cinq milliards la doon coûter à l'État le président Macky Sall yóbbu ko ba douze milliards ñu ne Sénat bi mu supprimer Sénat bi mm-hmm. ñu ne euh, yàlla yàlla euh, les agences agences yi bari woon agence yi ñu tijji woon ko agence fu nekk agence et cetera mu supprimer agence yu bëri xam nga loolu lan la jox état bi aujourd'hui cent soixante milliards de de de de bénéfices d'économie yu mu yoo xam ne le président Macky Sall serré na la vie le train de vie de l'état mm-hmm. ba dugalaat ko ci état bi cent soixante milliards yooyu mais am na feneen fu mu dugg loolu moo ñu permettre ñu mën a jël vingt cinq mille par par trimestre di ko jox à cent mille familles yoo xam ne dañu ndóoloon loolu moo ñu mun a permettre tey ñu mën a jël xale bu am moins de cinq ans ñu mën laa jox ay soins gratuitement ngay dem hôpital te doo fay loolu moo ñu mën a permettre ñu mën a jël quatre vingt quinze milliards. Mm-hmm. duggoo ko ci inondation ren wax dëgg yàlla yàlla dimbali nañu. Mm-hmm. amul ay inondation amul coow taw ba bëriwul aussi. waaw mhm. la jot a li a taw fii seet Dakar lu ko lu ko gën a tuuti sax inondé woon na mais loolu yëpp amatul. Mhm. donc je pense que effort yooyu su nit ñëwee di ko def. Mhm. nga ne yow da bëgg Sénégal da ko war a jàppale. man de su ma gisoon lenn loo xam ne ci président Macky Sall luy jëm ci boppam la wala muy liggéeyal famille am man naa koy njëkk a ndax noonu laa defoon Ablaye Wade Ablaye Wade bokk naa ci ñi ko njëkk a attaqué en 2004 j'étais aux États-Unis mm donc je pense que du ma ko bañal Abdoulaye Wade te président Macky Sall mayu ma fin du mois du jot ba mu suma salaire mu yokk ci dërëm. Mm-hmm. yokkul suma bon d'essence yi donc je vis comme tous les Sénégalais normaux alors donc gisuma loo xam ne tey jii mun na ma bañ a wax. toog ak le président. ba ba ba nga doon wax dëgg. waaw justement donc Sénégal moo ñu boole. Mhm. Sénégal laay xool intérêt Sénégal. te gën la te gën gën laa bëgg Sénégal j'imagine alors euh, euh, Macky 2012. Euh, man déjà 2012 boobu man seen appellation boobu dama xamul lu ngeen xaar yow yow gaa génn nga fa yow mais lu mel ne 2017 nga xam ne fi ñu toll nii bët yëpp foofu la ñu jëm lan lan dëggantaan moo war a nekk Euh, place wala boog apportu euh, allié euh, ay coalition yu mel ne Benno Bokk Yaakaar ak surtout Macky 2012 pour pour pour réélire président Macky Sall. xam nga Sénégal parti kese falootu fi benn président loolu jeex na. Mhm. ay coalition ñooy fal président président dafa amoon Macky 2012 ñun ci Macky 2012 la ñu bokk bokk nañ ci ñi nga xam ne. ba ñëpp ne du président Macky Sall ñun ñoo ne kii mm-hmm. mooy président Macky Sall. Mm-hmm. premier tour su amul woon deuxième tour du am. Mm-hmm. loolu moo tax historiquement képp koo xam ne bokkoo nga ci Macky 2012 tu rentres dans l'histoire du Sénégal yow yaa tax ba président Macky Sall falu léegi ñu am ñu falu en 2012 am les alliés de deuxième génération. muy waa Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar ñëw doggali tamit. Euh, régime bi ñu fa fekkoon. ànd ak ñun ñu gagné gagné bu rafet. gagné boobu mais dañu gagné présidentielle 2012 gagné législative bu 2012. Mm-hmm. gagné local yi ñu génne mais une équipe gañaan kenn du ko daan remplacer. loolu moo tax président ñëw ne damay organiser waat équipe bi tàmbalee nag APR. Mm-hmm. parce que président ak lu mu mun a def dañu ne béy na tàmbali ci. ci weewu waak mm. mooy toppatoo waa APR mm-hmm. ñoo ko njëkk a gëm mm-hmm. na fi man ak su may moroom yoo xam ne ba ko waa APR di topp topp ñu ko woon ñu ngi woon suñu mouvement mm-hmm. ñun on est venu après dans le cadre des élections présidentielles donc waa APR la war a njëkk a commencer toppatoo c'est intolérable un parti au pouvoir ngay gis ay membres ñu nekk ci yenn conditions yi c'est intolérable ah oui c'est inadmissible. kon kon euh, APR am na ñu nekk ñu ñu ñu. APR bari na Macky 2012 sax am na ci Macky 2012 am na aujourd'hui ñoo xam ne ils sont dans des situations intolérables. Mm-hmm. loolu c'est inadmissible donc loolu moo tax mu reprendre son parti. Mm-hmm. di dajeeg ñoom régulièrement actuellement reprendre Macky 2012 di dajeeg ñoom régulièrement. actuellement stratégie politique la. même on fait du la politique. waaw boo ñëwee 2017 ka kajuwaat leen. mais loolu nañu seet ba 2017. de toute façon ay mag lañu kenn du leen nax mais actuellement ci logique bi mu toll mooy. la dajalewaat coalition bi nga xam ne moo ko yóbbu au nag. Mm. waaye loolu ku koy bañ. <laughs> il est temps on est je sais pas moins de deux ans de de des élections. ah c'est sûr alors euh, euh, euh, ñu dem yow monsieur le ministre ci président Macky Sall ak ñu mel ne parti démocratique sénégalais nga xam ne quand Euh, foofu la foofu la meññee nuñ ko mën a waxee foofu la euh, ñoo ñoo ko bokk nañ si ñi ko dalal baax en tout cas ci ci politique euh, foog nga ne ñoo ñaar ñooñu suba politique mën a tax ba politique mën a leen dajawaat dajalewaat nañu ne ñun ñëpp dal. Mm-hmm. c'est possible. ah c'est possible président Abdoulaye Wade tey ji su ko président Macky Sall wuyu woon. ne ko dama bëgg a mm, remplacer la. Mm-hmm. ci à la tête du parti démocratique du ko gëmee. ñun ñu ngi ciy dox actuellement pour ñoom ñu ñu dellu si waat man maa ngi ciy dox Madické Niang mm-hmm. mu ngi ciy dox ak keneen mu ngi ciy dox. président Macky Sall c'est son intérêt lu am PDS mu ñëw ji récupérer leen. xamul mm-hmm. PDS ils ont. un grand problème. Mm-hmm. xam mooy problème lan leadership. Mm-hmm. dafa bari ay leaders. loolu nag je tire chapeau au président. waaw leadership éclaté boobu moo ko. je tire mm-hmm. chapeau. au président Wade au parce que xam nga leader. balaa ngaa mat mun a former ay leaders. le président Wade en a formé des tas. des tas de leaders. mais moo ko jëlee armée mexicaine. mais mais quand ci day wane moom euh, la force de son leadership. leader noonu lay mel. Mm. leader da nga war a être capable. de mm. former des leaders. mi ngi mel ni professeur bu mënul former ay professeur te mm. professeur des na. dëgg la Abdoulaye Wade ana formé des tas. Mm-hmm. benn bi mooy suñu président actuel bi. Mm-hmm. ci moom la jógee donc kooku on lui tire chapeau. Mm-hmm. mais leader ya mu fa bàyyi dañu am des problèmes d'harmonisation. am na ay leaders yu tax taxaw à la télé ne ñoom du ñu topp euh, suñu nekkul président du ñu topp ci ginnaaw kenn. mais loolu le la solution mooy ñu jël président Macky Sall c'est la solution loolu su ko Abdoulaye Wade mënoon a am mais il va régler tout le problème du PDS. Mm-hmm. tout le problème du PDS te c'est l'intérêt aussi c'est l'intérêt du président Macky Sall mu xool côté libéral euh, parce que parce que intérêt bi mooy il est dans une coalition boo xam ne ku ci nekk du dugg ci partem mm-hmm. y a des yoo xam ne du dugg ji mukk ci pëccee ca APR bi ñu sëy mukk ci APR dinañ ko gunge nag ba fu mu yem neex mais libéraux yi nga xam ne moom foofu la jële jóge mooy kër ndeyam di kër baayam mm-hmm. ñooñu su fexe woon ba jël leen ci partam il va renforcer son parti il va se renforcer moom tamit te dootul ragal dara waaw ba ba tamit euh, euh, xaw na manqué tamit euh, moom moom président Macky Sall ci APR ay ay ay leader yu am charisme quand même ça il faut le dire xaw na ko pànle. manqué na ko bu bu na ko parce que ñoom charisme ñu yooyu. ñu kii la ko manqué. Ah, ñu ñëpp ci d'accord <laughs> ñëpp ci d'accord non non c'est vrai. Ah, APR ah, vraiment dafa am président Macky Sall dafa wéet ci ay. waaw ñu am saf xorom waaw ñu am charisme te Sénégal dañu bëgg ku saf xorom waane tuuti xaw a nga xam ne di nga mën a wax gaa yi dégg la xam nga ay jeunes yu fële la. waaye fëleguñu waaye man. Ah, ah, ah, am am na ay jeunes yoo xam ne. ils ont ils ont de l'avenir. non y en a y en a y a beaucoup de jeunes. qui ont de l'avenir non am na ci ñoo xam ne sax ay maire lañu. bëgguma citer ay noms. mais y a des jeunes non non mais par exemple le directeur de l'APIX. Euh, c'est un cadre Mountakha Sy c'est ah, un cadre Mountakha na xam naa ak ma koy nuyu sama sama sama sama xarit bu bees justement ñu mun Mountakha déjà olofon mooy loolu choco choco la tubaab la vraiment ah, <laughs> xam naa ne maire maire benn gox la sax ci ci Fouta yooyu mais quand même mu dëgg Mountakha nag franchement am na Mountakha moom moom moom moom y en a plein y en a plein de jeunes yoo xam ne ils sont dans la paix ah, mais ñu waane daal mais ñu waane moom président Macky Sall dafa xaw manqué ñu waane mais c'est ça dafa manqué léegi léegi euh, euh, est-ce que dajoo daje daje euh, euh, APR ak euh, PDS dina mën a neex bu ñu gisee ne Karim Wade mi ngi ña ngi koy weer fële ca ca ca tribunal ba. libéraux yi ñu ci bëri ñu ngi épr dama ko les cré yi ma ngi seen nopp ñu bëri tal talatuñu dara daal Idrissa Seck aussi nga xam ne fi mu ne nii daanaka yéen a ngi koy dépouiller mu mel ne stratégie président Macky mooy euh, euh, euh, bañ a am opposant en 2017. mais amu ko bañ a am rival ah. amu ko kan mooy kan mooy opposant Macky Sall en 2017. Khalifa Sall. mais Khalifa doon président. Khalifa balaa moo nekk président. Hmm. balaa moo nekk. candidat candidat. Hmm. il faut parteem ngemb ko. te foog nga ne parteem duñ ko ngemb. mais je sais pas ci parteem la départ. kii nag euh, Idda Seck xëy na fii euh, kii. ak Khalifa Sall Khalifa Sall n'est pas notre problème. Hmm. Idda Seck ci condition yi mu ko gagné ñun ñu xam naka la gagné dakaar hmm. du ko tee nekk président de la République. c'est impossible bokkuñu contexte yi ñoo bokkul local ak présidentiel. bokkul d'accord naa. à Rufisque on connaît pas qui est Khalifa Sall. Hmm. kon à Ngexox on connaît pas qui est Khalifa il nous reste beaucoup de chemin à faire. qui peut pas accomplir en l'espace de deux ans. c'est pourquoi le président n'en parle pas et puis bu mu victimiser boppam tamit ba yaakaar ne waa Sénégal nañ ko yërëm yaa rien l'acte trois moo ko joxatul prérogative yi nga xam ne mënatul taxaw di defar ay maire dañ ko jël xaalis boobu delloo ko ci maire yi nga xam ne seen gox ñoom ñoo leen. d'accord léegi léegi Khalifa Sall yóbbu nga ko ardu mais Idrissa Seck mi nga xam ne fi ñu toll nii. Idrissa Seck moom. Hmm. dafa mel ni euh, wax dëgg yàlla actuellement fi mu toll. Hmm. euh, il a un problème personnel. Ah. le problème personnel nag xëy na ci moom la parce que euh, nit soo toogee say xarit di la bàyyi say mbokk di la bàyyi say militant di la bàyyi y a un problème boo xam ne moom moo ko war a résoudre boppam. Mhm. je le respecte beaucoup. il a beaucoup de charisme Idrissa Seck. il intelligent. Mhm. j'admire son intelligence. Mhm. mais je pense que nekk président il faut plus. qu'un charisme ou bien une intelligence il y a facteurs yoo xam ne day jouer mm-hmm. benn bi mooy obsession wu quelque chose mm-hmm, nit mm-hmm. doo doo dañu ne looy bëgg bëgg ko ndànk looy bañ bañ ko ndànk donc yooyu yëpp war na reconfigurer xoolal boppam Idrissa Seck en tant que président de la République il serait un très grand président de la République mais le problème mooy passage bi mu dem ba nekk président de la république day def ndànk ci ay passion day def ndànk ci xam nga sa démarche de faire c'est possible mm. c'est possible un jour man du ma wax mu c'est pas impossible <laughs> mais encore plus il a tellement perdu de combattants qu'il peut plus devenir un un un un adversaire pour le président de la république d'ailleurs loolu moo tax mu dugg ci stratégie de la coalition d'addition. xam nga euh, le président yi ñu bëri dañu xamul la stratégie qu'il avait qu'il a fait gagner en 2012 mooy la coalition d'addition le président Macky xamoon na ne les grands partis ñëpp ñu ngi woon ñii ci euh, Benno ak Tanor. Mhm. ñii ci Benno ak Siggil Sénégal il n'a pas suivi cette logique. Mhm. il est allé ci local bu nekk gox bu nekk mu jël fa am Aïssatou Sa Fall Aïssatou Diop Fall. xam ne ay Diop Fall fii mu dëkk fii kenn du ko fi mën fii ci ngeexoox bi Aïssatou Diop Fall moo fi jël mu ñëw dugal la ci coalition. Mhm. noonu la def Sénégalais bi yëpp Sénégal bi yëpp ba créer Macky 2012 moo tax Macky 2012 leader boo ci jël moom individuellement à l'exception de yenn leaders nationaux yi. ko mhm. man Jean-Paul Diaz Ibrahima euh, euh, Sall euh, Imam Mbaye Niang et cetera. Mhm. ñun à l'exception de nous ak Mously Diakhaté à l'exception de ñi nga xam ne dañoo am une envergure nationale ou internationale leader boo ci gis goxam boobu rek lañ ko xam xam ñu ko au niveau des autres mm. mais loolu mooy l'addition qui a fait gagner le président Macky Sall. Mm. Idrissa Seck nag ci logique boobu la jóg. moo ah. tax mu dem Casamance. Mm. Ah, dem Podor et cetera day ci trace bu président Macky Sall. mais mais mais ku mel ne Karim Wade moom laa doon euh, euh, commencé wax sax mooy euh, Karim Wade est-ce que juboo président Macky Sall ak PDS dina yomb ndaxte waa PDS daanaka ñu fa ëppoon xorom yëpp jël nañ leen dugal leen prison wala di leen menacé yooyu est-ce que ku mel ne Karim Wade bu yëf yi jamono soppeeku. Euh, ba mu génn ci ennui euh, euh, judiciaire am yi yéen jàpp ngeen ne force la ba leen mën a sonal 2017. bon carrément naka la ñu mën a for for sonalee 2017. te dem fi élection natt boppam ñàkk ko. c'est-à-dire la mu Sénégal yërëm nañ ko de temps parce que dafa nekk ci kaso bi Sénégal la am yërmande. Mhm. dañu am yërmande bon du ma dugg tamit ci dossier Karim duma dugg ci dossier boobu parce que mi ngi ci justice loolu moom duma ci dem mhm. mais ce qui mooy Karim su génnoon tey mhm. gis nga coow li nekk ci Karim Wade yëpp trois mois après mais euh, euh, kii le président Abdoulaye Wade bi mu laata ñëw Sénégal xoolal tolloo tolloo bi bi mu fi indi. Mhm. anamu loolu yëpp jeex na Sénégal psychologie Sénégal ñoom ñoo mel noonu. noonu la Sénégal di doxe mhm. waaw waaw euh, euh, léegi. donc donc pour revenir en conclusion. d'accord nga ci man ak man que président Macky Sall amul adversaire en de mais mais mais mais quand même surprise na jógee ci ku mel ne. Euh, Mimi Touré ak ay Alioune Badara. mais Mimi Touré ci këram. waaw mais dellu si ñàkk. dellu si na ci këram ma ne du du du semblant du semblant dellu ci këram ci dellu bu wóor dafa dem vacances yi. def ay affaire am à l'extérieur su dellusee il elle va être active dans le parti du président et derrière le président de la République. waaw ah, mais mais loolu. il faut prendre de moi te dis. Ah, euh, kon kon am na am na parce que yow moom xam naa ni <laughs> ay information yu. dina waxantu waaw mais kon mën nañu xaar ngeen ngeen jox ko dara daal Mimi. non xam nga. dellusi comme ça mu toog dellusi bi nekkul ci ñu war koo jox dara. mais c'est pas conditionné. c'est pas conditionné xam parce que mënul fay le président Macky Sall ci li mu ko defal ba pare koo xam ne leader politique la woon bu xarañ ndax nekk na fi deux fois directrice de campagne donc kooku xam na politique. Mm. génn alex l'extérieur am fa ay lijaasa yoo xam ne soxna yi ko am fii ci Sénégal dañ leen di wàññi. Mm. am position boo xam ne au sein de l'ONU ah gisaguma ñaari soxna yu ko am fii au Sénégal donc kooku kilifa la kooku ñëwul pour laaj position. bi muy dugg ci ci ci ci Macky 2012 bay ànd ak le président Macky Sall tegu ko woon ci ay conditions daf ko ne bàyyi naa lépp aux États-Unis bàyyi naa suma position de directrice bi bàyyi naa suma alal bàyyi naa sumay sumay njaboot foofu dama ñëw pour ñu liggéey Sénégal bon su dellu si waat tamit ci logique gu ànd ak président Macky Sall liggéeyal Sénégal la waaye du ci ay logique gu position Mimi Touré lan lay doyeeti position lan lay doyee Mimi Touré ñu on ñun fanatique ñu ci position parce que dañu nekk à un niveau international boo xam ne la fa am Sénégal mënuñu ko may. Mm-hmm. te ñun ñoo ko liggéeyal suñu bopp. d'accord mais ku ne Alioune Badara Cissé nag. Alioune Badara Cissé day dellu si waat ci euh, Macky Sall. suwee nga am ko c'est un vœu. non du vœu ñu ngi koy dox te dina dina balaa 2017 tu verras Macky Sall va regrouper tout sa famille tout sa famille. ñoo demandoo 2017. d'accord donc parole de Arona Coumba ah, Ndoffène. mais dama rek dama bëgg. tamit yoo xam ne yow tamit kuy nga. Mm. Ah, <laughs> euh, am na am na fi nga teg. Eh. dama bëgg nga d'accord ak man ne. Eh. président Macky amul adversaire 2017 ici au Sénégal loolu xam na lan la. Eh. yàlla moo koy maye. Mm-hmm. lu ko yàlla may la rek. Mm-hmm. xam nga tey jii ni ni mu defee ba Ablaye Wade ñu bàyyi ko. Ablaye Wade bàyyi ko dax ko ci premier ministre dax ko ci assemblée et cetera. Mhm. loolu parcours bu ko yàlla jaarale la pour tey ji mu doon lu mu doon. Mhm. noonu la ko yàlla di mais en 2017 tamit. Mhm. du am adversaire amagul. en tout cas dans le champ politique actuellement sénégalais amuñu benn koo xam ne présidentiable na ci calibre. président Macky Sall. d' accord donc ñu xool euh, fii ak 2017 euh, ah euh, man mënu ko maa joxe suñu gomara chèque. ah non wax na kenn rek <laughs> ah, mun ma wax ñëpp daal disqualifié la. waaw d' léegi non bu ñu parce naa dégg tam ci ay mel ne ay crise scolaire et bëgg naa ci dégg ñu ñu jeexal question politique yi rek ak sa xalaat est ce que rafet na jekk na président Macky Sall ay mag yu doy na ay Amadou Matar dégg nga mu mu mu mu kii vraiment en grande pompe ah sant leen liggéey bu rëy ah ñu réformer euh, sunu constitution et cetera yu ba réformer institution yi. ñooñu jébbal ko rapport yoo xam ne euh, en tout cas ñaar ñi nga xam ne ñoo si gën a fës muy euh, képp koo xam ne nii chef de parti nga nga bañ ko cumuler ak euh, fonction chef de l'État ak itamit proposer régime parlementaire pour rek démocratie bi gën a éclatante ci muy réew mu jël loo kat ji ko est-ce que loolu rafet na ak sax budget bi ñu leen jox ñoom. dinaa la wax dara. Hmm. CNRI. président Macky Sall moo ko créé. Mhm. jógewul ci assise nationale. président Macky Sall moo ñëw créé commission de réforme donc commission am la moo ko financé tamit. Mhm. xanaa kooku bëgg na ci am njëriñ. Mhm. defu ko simplement pour les beaux yeux de qui que ce soit mu jox leen liggéey ne leen lii laa bëgg ngeen liggéey attu leen tamit moi j'étais là-bas ne leen ñaar bi duma ko def mukk benn bi mooy parti du ma indi ci chaise bi ma toog ngeen ma ne bàyyi leen ma parti <laughs> waaw su ma bëggaatee chaise bi ku may yóbbu. Mm. doo jël gaal joow ak moom ba egg ci tund ba waaw ñu ne la bàyyi gaal ga waaw léegi yow soo waree dellu si waat. waaw waaw noo dëgg noo def ni nga ko waxee nii moom baax na. ah mm-hmm. loolu du ko def tey. du ko def ëllëg du ko def ëllëg. wax nga dëgg. dégg mm-hmm. ñu dem ci régime. ñu indil ko constitution am na ñuy wax ne constitution bu bees la am na ñuy wax constitution bu màgget la président Macky Sall nee na te li ma la wax moo ma ko wax. Mhm. ma ne la du changer constitution Senghor du changer constitution bu fi Abdou Diouf bàyyi du changer constitution bi fi Abdoulaye Wade bàyyi. parce que arrangé wu ko. du question arrangé wu ko de. li mu bëgg mooy ñu seet ci constitution bi luy dëgëral démocratie Sénégal. luy dëggal démocratie Sénégal nga ne salaamaaleykum ne ko dangay bàyyi sa parti mu ne maa du ko def il va pas le kon rapport ba amul sens seen kon amul sens. non am na sens am na ay yeneen point du loolu rek nit yi dañu dañu focaliser rek ci ñaari point yooyu. Mm. ñu ñëw ci premier ministre Sénégal. régime am semi parlementaire la di semi présidentiel. Mm. c' est à dire da dafa dañu flexible. Mm. ci diggante parlementaire ak présidentiel. Mm. soo demee à l' assemblée nationale. assemblée nationale du du fal le premier ministre. Mm-hmm. donc mënul doon régime parlementaire mais premier ministre bi aussi. en retour mooy dem devant l'Assemblée nationale présenter la déclaration de politique générale mm-hmm. loolu day xaw a niroog la day xaw a niroog parlementaire. te mhm. pourtant présidentiel la. Mhm. mais dañu fàtte ne ci instruction chef de l' lay defee loolu. Mhm. ci instruction chef de l' lay defee loolu jëmmam ba dafa nekk rek waaye dafa am ku mu représenté ki nga xam ne moom la suñu constitution jox les prérogatives de conduire la politique de la nation kooku président la. d' accord alors pourquoi nag léegi yow. ñu bëgg ñu transformer loolu yëpp def ko régime parlementaire bi nga xam ne tey jii soo demee Belgique moo ko plombé Israël moo ko plombé tëngeeg Mali yaa nga fa ci régime parlementaire yi am ci àdduna bi yëpp loo xam ne par exemple tey dañuy ñëw premier ministre président dootu ko fal assemblée koy fal assemblée président su fa majoritaire opposition majoritaire <laughs> mu daaneel ko. dëgg la kon daal kon si tënk daal. am na ay réew yoo xam ne tey jii ci régime parlementaire toog nañu ay une année yoo xam ne voté wuñu seen budget. nu réew mi di doxee. waaw ah, donc donc président du ko def. kon dugg dugg di. va pas le faire régime parlementaire dugg di. du ko def. d' accord <laughs> léegi. bu bëgg la jox rek trois trois secteurs euh, euh, qui sont autres que la politique ah. te foofu tamit ay jafe-jafe am fa euh, su ma la waxee njàng meek njàngale bi ci réew mi. gis nga ni mu ni ko ñoom Alaaji Assane Gueye di waxee euh, lompoñ la ah euh, énergie bi tamit euh, foofu dama fa bëgg a suux ndax sama xarit bu bees boobu directeur général Sénélec Pape Dieng temps yi daf may menacé <laughs> moo tax bu du ma ci sor waaye tamit sañ maa de coupé coupé courant bi coupé tàkk nu ñu ko waxee coupé gauche coupé coupé coupé midi coupé soir waaye tamit fourniture bi daal en tout cas consommateurs yi kontaanuñu si torop foofu bëgg nañu xam euh, lan la fa président Macky Sall def ginnaaw plan tàkkal ak beneen bi nga xam ne euh, jàpp nañ ne bokk na en tout cas euh, ci programme prioritaire yu président Macky Sall muy agriculture donc trois yooyu yëpp benn bu ne loo mu ci mën a sànnil rek. d' abord jàngale bi. Mhm. déglu ma bu baax. Mhm. Sénégal tamit déglu ma bu baax. ministère de l' enseignement ministère de l' éducation nationale seen budget trois cent cinquante deux milliards. cinq cent millions la. ministère de euh, l'enseignement supérieur seen budget cent dix huit milliards. Mm. soo leen boolee muy quatre cent soixante dix milliards. pour le seul secteur de. le seul secteur. Ah. soo jëlee les agents de l'État cent dix mille agents de l'État. Mm-hmm. employés de l'État fonctionnaires yi ngay dégg cent dix mille lañu. cent dix mille deux cent milliards mooy seen salaire. Mm. ci cent dix mille yooyu soo ko yëkkatee vingt dix mille yi ay jàngalekat lañu ñu ngi touché six cent cinquante milliards. Mm-hmm. jàngalekat yooyu ak étudiants yi nga xam ne dañ leen di fay milliar de bourse te chaque année quarante étudiants quarante mille étudiants ajouté wu ci donc loolu mooy lan mooy. d'ici 2025 il y aura 200 000 étudiants. ci ñu leen di fay bourse. ça c'est un problème. nga jël secteur boobu yépp les ministères de l'éducation avec un grand E ils font le cinquième de nos recettes ci 13 millions de Sénégalais secteur boobu soo jëlee li Sénégal di am yépp ci liñ koy fay ci port ba liñ koy fay ci aéroport ci douane lu muy am. ci foncier li muy am taxe foncier yi ci impôt yi loolu yépp xaalis boobu yépp suñ ko dajalee soo ko defee juróomi pàcc benn pàcc bi entièrement ci secteur boobu la jëm. kon daal daal gouffre la daal. mais ñooñu suñu amee problème. waruñu xalaat ne xaalis bi ñuy jot muy les enseignants en commençant par wane un patriotisme xam ne dans ci li ñëpp bokk cëral nañ leen cër boo xam ne kenn amu ko. loolu ngoor la mm-hmm. mais loolu nag soo ko gisee mooy on a mal formé le citoyen Sénégal mm-hmm. parce que système éducatif Sénégal dañ ko calqué ci système éducatif wu Europe nasaraan yi moo toj seen bopp yi mm-hmm. ba waral le citoyen sénégalais ni ko waroon a formé mu nekk un légaliste un humaniste kuy respecter ay biens communs. mënatul am Sénégal énergie bi loo xelu Sénégalais yi. ñun amatuñu problème production xam nga problème production xam nga énergie délestage soo ko déggoon dañu ne ah bateau pétrole bi moo excédé. wala pétrole bi ñëw na waaye dafa yàqu. wala sa lañu saako wala et cetera wala des na loolu amatuñ ko. Mm-hmm. alhamdulilah rabbi alamin on a résolu le problème de la production mooy Sénégal bu mu am délestage ba nga yaakaar ne pétrole amul loolu amatul. Mm-hmm. lan moo fi am dañu ñëw fekk fi ay matériel bu yàqu. Mm. on n'a plus le problème de la pollution mais on a le problème de de matériel yu yàqu. dañu mm. dañu màgget dañu yàqu yooyu lañu war a changer. ba tey trois ans. même su nekkee cinq ans matériel bu def cinquante ans du deux ans moo koy fabriquer. Mm-hmm. soo xoolee par exemple liy jógee Bel Air ak Cap Manuel. Mm-hmm. yooyu yëpp central yooyu yëpp dañu leen war a changer waat. Mm-hmm. problème yooyu c'est des problème techniques kuy dawal oto oto bi paan da nga koy nangu. mais ci la ànd. mais la waroon délestage yi loolu ñun résoudre nañ ko ba pare le président Macky Sall ñoom indi beneen beneen façon wu politique énergétique mu tuddee ko mix énergie xam nga lan mooy mix énergie. Mm. énergie mooy safara président Macky defa ne lépp luy indi safara man dinaa ci teg suma loxo mu mu mu joxe courant mm, président Macky Sall ne d'ici horizon 2017. dinaa fexe ba Sénégal am 1000 mégawatts ñu ngi ci 750 mégawatts 350 mégawatts ñoo ci des benn bi centrale de Sendou dina ko complété centrale de charbon bi ñu nar a euh, def dina ko complété bi yi si des yépp nag mu def ko énergie solaire. agriculture c'est très simple. Sénégal su autonomé en en riz di produire 1 million 200 de riz blanc. mais c'est 200 milliards qui vont s'ajouter dans l'économie xam nga loolu lan la signifier mooy suñu suñu indice croissance dina yokk à deux deux pour cent ah, donc donc kon. man euh, euh, la suñu xel dal. vivement que tous ces projets là. ne soient pas des éléments. non man suñu xel dal y a beaucoup de projets qui vont venir. Mm. waxuma gis nga suñu doon wax xam nga euh, malheureusement le président ne communique pas. Mm. parce que c'est sa nature. Mm. et son son je sais pas comité wala commission de communication sont vraiment euh, xarañ. ah bon ah non non ça je le dis. ah ñu yor communication. non ñu yor communication du ah, ah, président ay ñëw ay ñëw. là ça je le dis ah je le dis à haute voix. Parce que le président a fait autant de réalisations. Je te dis, on peut prendre toute une émission, moi, on les réalisations du président. Nous avons déjà. Nous avons dit texte à Baram. Bangi tagoto Sénégal, nous wax nañu dal xel. Mhm. Ñun ñu ñëwé dañu doon wax né duñu fay salaire en 3 mois. Mhm. C'était la vérité. Mais yàlla dimbali nañu. Té lolu liko waral du président Macky Sall kessé dé. Benno Bokk Yaakaar ñoo ko waral nit yi dañu xamul ne bi président Macky Sall ba ñu ne kees yi vide na dafa woo Tanor ne koy ah dama waxoon ñu gérer ñu ñu ñu gagné gérer mais Tanor dem France mu woo Jean Paul Diop Jean Paul Diop euh, euh, Jean Paul Diop mu woo euh, naka la tudd Jacques Diouf Jacques mu woo ma man ma jóg ku ci nekk am sa daw sa coin ñu mm. dellu si waat indi koppar. Sarkozy rek ci doxu ay ñoom Tanor rek ay ñoom Jacques Diouf et cetera ak Jean-Paul Dias mais may nañu immédiatement cent dix-huit milliards. Mm. loolu benn bokk yaakaar moo ko liggéey. réalisation yi ñuy def au niveau du gouvernement Benno Bokk Yaakaar moo ko réalisé mm. bon Sénégal yi politiquement nañu dalal xel ne Benno Bokk Yaakaar c'est une coalition qui marche su ñu demee nag ba 2017. ku ci nekk mun nga dem jël sa mm. engagement. mais ku ci politique yi ëllëg. pour 2017 ci bilan bi nga xam ne ñu noo ko bokk liggéey nga koy def. Mm. waaw maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen ñaanal sa équipe bi. Mm. yal na leen yàlla yokk. ñaanal tamit seen euh, kii euh, kilifa bi mm. yal na ko yàlla yokk. na ci tabaski bi waaw di di baalu ak <laughs> ñëpp nag. ci ci tabaski bi. képp koo xam ne wax naa fi lu la wala mus naa wax. lu la mus dugg wala heurté. maa ngi la ci baalu ak baal naa ak ñëpp. yàlla musal. amin wàll ñun donc ñu lay ñooy jaajëfal bu baax a baax monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf fi nga génn foofu la dugg euh, ci ci tabaski bi tamit ñuy ñuy baalu ak di jéggalu képp koo xamante ne nii rek euh, ci lu ñu yëg ak lu ñu jégul tooñ nañ la euh, may man nag may may jégalu bu baax nag ñaar ñu ñaar ñi dend comme par hasard <laughs> moo doon ñu gën nga xam ci Pape Sylla <laughs> <laughs> alaaji Mor xar ma dëgg dañuy am ñu koy tooñ da ko tuddee euh, saf na neex vraiment ñu leen ñu ñu leen di baalu ak vraiment di leen jéggalu ah di di di baalu ak tamit bu baax a baax man ñi man ñii ñëw ñii ñooy sama xarit ci bi ñoo leen laay tooñ sama ñaari ñii ak euh, Maodo ma lay xam fu mu nekk euh, Maodo Dia sa xarit yaa ngi agsi fii ak tamit Yaya Yaya Diallo agsi waat na ci biir émission bi ci nag montage bi ñu nuyu bu baax nag Bobo Chim di baalu ak ñëpp di di wax ñëpp nag déwénati monsieur ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf euh, ñu lay jaajëfal euh, sama tonton bi si euh, dalal bi ñuy dalal nee naa saa yi ma bëggee rek am benn lecture wala benn analyse bu bu xarañ sans concession ci actualité bi si réew mi nu muy doxee rek yow laa xëcc ci teg la fii te sénégalais yi nag kenn meru ci ndax yow sañ ngaa wax ni ma ko waxee rek américain nga te ñun jamono ji nag américain lañ gën a soxla nag ndax ñu ñuy wax daal li xew li xew ci dëkk bi face face mbokk yi beneen dimanche